نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wa kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqazakum minha wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arham summa ttaquu yawman turjacuuna fihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun qala taala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha haza wa salawatu llahi وسلامه عليك يا خير خلق الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أو كما قال وسلموا تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم bokk jullit yi gannaaw bi ñu sant Yàlla tabaraka wa taala te xéewal ñu jox di weeru koor boo xam ne bokk na ci weer bi gën ci weer yi yàlla def ci lu bëri loo xam ne defu ko ca yeneen weer ya weer woo xam ne ñetti fukki fan la muy fan weeri fan fan yu jëkk yi yu jëkk yi yàlla ne danaa ko def rahma ñaareel fukki mu ne danaa ko def maghfira ñetteel ya mu ne itqu min annaar sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa wax ne man sooma ramadan imanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma taaxar kon loolu yi dina fa war a tax nit ki jaamu yàlla bi nga xam ne mooy jaamu yàlla mu doy ci moom ñu ne ko weer wi fukki fan yu jëkk yi yërmande la bi maana yàlla dana yërëm jaamam bi bi maana yàlla dana wàcce yërmande ci kaw suuf bi maana yàlla indi na sart ci kaw nit ki muy woor mu bàyyi lépp loo xam ne mboosoor la wala du noonu kon imaanan waxtisaaban lii mooy tax mu am gufraan lii mooy tax mu am rahma waaye itam mooy tax mu am itq min an mu mel ni kon charte lay doon bu ñu waxee ne ku woor yàlla jéggal la say bàkkaar ñu wax ne ku woor yàlla yërëm la ne yàlla ne ku woor ma jotal la ci safara te may mu musal la ci safara te ku mucc safara aljana nga dem waaye itam sayyidina wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama su fekkee ne indi na ko am na beneen boo xam ne dana ci laayo biir jullit bi dana ko ci neexal dana ko ci itam ñaax di ko wax ne inna fi l janna baabun yuqaalu lahu rayyaan yuqaalu ayna saaimuuna fa yaquumuun ne am na teraanga bu nekk ci biir aljanna am na teraanga yoo xam ne alquranul karim moo la koy may nga mokkal ko dem ci aljanna ba dugg sa kër gën ba noppi ñu ne am na teraanga boo xam ne ñi man alquran ñi mokkal alquran ñi ko daan jàng ci suuf laata ñu ñëw ci ñoo ñooñu am na teraanga ñu ne yàlla luy teraanga bi mu ne commencé nga tari alquran aaya yi nga xam ne moom nga mokkal aaya boo mokkal boo ko taree mu mel ni dañ lay yëkkati ci benn niveau ci kër mu mel ni benn aaya première étage deuxième aaya deuxième étage troisième aaya troisième étage noonu ngay def ñu ne irqa iqra warqi kon da ngay dem di dem war taqi da ngay jàng alquran noo gën a jàngee alquran aaya boo fàttaliku boo ko taree mu mel ni kër la ci biir aljanna nga di ko yéegee di ko yéegee ne na nag am na beneen tiraanga boo xam ne sayyiduna wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla moo ko waxal boppam ne moo koy fayal boppam ndax kenn doyu ko ci kudul moom boromam moom boppam moom yàlla mu fayal ko boppam mooy résultat bi nekk ci koor ne bi nga xamante ne bàyyi nga li nga xam ne moo daggan ci yow kon bàyyi nga li xaram ci yow ku mën bàyyi li daggan ci moom ci bëccëgu weeru koor benn fan ñaari fan ba fukki fan ba fan weeri fan am mu ne kon kooka bu continuer lépp loo xamante ne kon daganul war na ko bàyyi kon su boobaa kon day daal di ñëw moom koor nekk loo xamante ne sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba nga ko waxee ne bashiran ne bëggal leen ñaax leen bokk na ci ñaax nga mu ne àllaaxira dana am benn parti walla benn buntu walla benn may wala benn kër goo xam ne kenn du fa duggu ñu ñu doon woor ñu ne porte boobu walla kër googu mu ngi tudd rayyaan ne automatiquement bu àllaaxira jotee yàlla ne ana ñu doon woor koor googu moo yëkkati jaam bi koor googu moo lay sawarloo ba nga mën a jóg pour dem dugg ci biir foofa ci néeg boobu wala ci bunt boobu képp ku daawul woor nag doo fa mën a dugg képp ku daawul woor itam doo fa mën a jege ndax lañ c'est automatiquement ñi nga xam ne ñoo nga doon wooree nga mën a dugg ci teraanga boobu bokk yi mu mel ni kon bu waxee ne yërmande la ci fukki fan yu jëkk yi ne njëggal la ci ñaareelu fukki yi ne itam jotula ci safara ci ñetteel yu jëkk yi kon su ñetteeli koor gi kon su boobaa kon weer bi nekk na trente jours yoo xamante ne nit soxla na yëpp amul maqaama booy am walla mu doon daraja wala mu doon pal boo am ci suuf lu dul ne yow yaa ngi soxla yërmande yàlla njëgalu yàlla yaa ngi bugg itam mucc ci lakkum safara bokk yi sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñu indee aaya alquran bii nga xam ne yàlla moo ko ko jox ne kutiba alaykum siyam faratal na ci ñun koor koor googu kama kutiba ala alladina min qablikum waaye noo ne itam laa ko faratale woon ci ñi nga xam ne ñoo ci ay xeet wala ci ay yonente ma yónni leen waaye yéen seen bos nag moo gën a mottali moo gën a mat moo gën a baax ndax lan moom laa jox ki gën ci mbindeef ki gën ci yonente te kenn dootul ñëw ku dul moom kon mbaaxi yëpp dajale naa ko ci moom la desoon itam jox naa ko ko moo tax mu ne inna fataxna laka fatxan mubinan li yaxfira laka allah ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran azizan ne kon lii moo tax mu ne lépp luy mbaax lépp luy njub lépp luy xeetu xiiwal yëpp ne jël naa ko dajale ko ci sang-sang yi muy sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon kookee bu ñu indilee dara moo tax yàlla ne ñu xool leen ci moom lépp lu mu leen sant ngeen def ko lu mu leen tere ngeen bàyyi ko ma ataakum rasula fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon yonent yi yëpp bëgg nañu yërmande Moussa ñaanoon na ko yàlla Isa ñaanoon na ko yàlla Nuuxit ñaanoon na ko yàlla ay ayuba ñaanoon na ko yàlla waaye tam kenn ku ci nekk ci yonente yi ñaan na yàlla yërmande ci moom waaye njëggal itam ñaan nañu ko lu tax ndax bu la yàlla yërëmee ba jéggal la wala mu yërëm na te jéggalagu la am na lu manqué am na lu des ndax yërmande baax na yërmande yaatu na waaye nag dugg aljanna wala nga dugg ci kër wala ñu ne président de la république wala ki gën a màgg ci kaw suuf ñu di ko xoolee bëttu màgg ne kooku moo leen invité mu invité la ba ci kër gi mun nga añ mun nga reer mun nga ndekki waaye ñu ne doo ko gis kooka dafa mel ni kon jaratu ko woon kon yërmande matal na waaye léegi ne matale mooy njëggal képp koo xamante ne yàlla jéggal na nag dana la gërëm moo tax boo demee suratul bayyina mu ne radiyallahu anhum wa radu anhu pour yàlla gërëm la il faut njëkk mu yërëm la mu jóge ci état bu yërmande dem ci njëggal jóge ci njëggal nag lii nga xam ne moom nga doon ragal yépp mucc nga sa lépp nag la des mooy lan yàlla nag gërëm la yow te bu la yàlla gërëmee nga gërëm ko boo gërëmee yàlla mu gërëm la moo tax su ci olof yenn saa yi nga dégg koo xam ne dafay jaay di wane ne dafa dégg wolof mu ne maa ngi gërëm yàlla yàlla kenn di ko gërëm ndax ngërëmaande ci kaw lay jógee ñëw ci suuf waaye du jóge ci suuf dem ci kaw kon jaam mënul gërëm yàlla daf koy sant ba pare mu sottee mën a teg ngërëm wala mu ne maa ngi koy sant bu baax ci lim ma defal waaye kantaa ngërëm kooku ci kaw lay jóge ñëw ci suuf naka noonu yërmande ñépp a ko soxla ñépp a ko bëgg ñépp a ko aajowoo moo tax bu ñu yàlla yërëmul woon du ñu indil alquran kon bëkk na ci yërmande yàlla li mu xam li mu bëgg li mu fekkee li mu gis ci ñun li mu xool ci ñun li nga xam ne moom la nar ci ñun te ñun ñu tooñ ko bañ mu wàccee ñu ci kaw suuf mu doon prison boo xam ne fi lañ ñu dugal ne foofa kon aajo nañu yërmande kon yërmande moo tax mu indi ñu alquran ne kon xam leen ne bés ni ki tey lii laa bëgg lii laa bañ lii laa santaane lii laa tere moo tax alquran ba mu jeex baqara ba naasi amul lenn loo fay fekk lu dul defal lii bàyyi lii defee ko nii bul ko defee nii lii mu nekk ci alquran kon alquran ba mu jeex mooy ifal wala tafal defal bul def defal lu baax yi yëpp defal yu jékki yëpp defal santaane yëpp waaye bul def lu bon bul def li la yàlla tere bul def bul def bul def boo toppoon ñaari kese yàlla ne kon lii la ka fatum dana mën a doy képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf kon mbokk yi mu mel ni kon koor dafa ñëw pour mottali doomi aadama bi dafa ñëw pour yàlla ubbil ko buntu boo xam ne jën na li gën ci àddina ci weer mu def ko ci weeru koor bayu ca mu ne ñetti yii ma def amul ci beneen weer ci weer bii laa ko def waaye jeexul de am na beneen teraanga boo xam ne ci laa wàccee alquran nda unzila fihi alquranu fii mu ñëw mu ne la inna anzalnaahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylatu alqadr laylatu alqadri xayrun min alfi shahrin kon nala la ne weer la woo xam ne promotion bi ci nekk ñu mën ko tuddee noona te mooy da ngay def benn walla nga jënd benn ñu jox la téeméer bii déedéet da ngay def benn ñu jox la junne nga wax benn ñu fay la ko junne nga jënd benn ñu jox la junne am na fan nga mës a gis ku jënd benn oto ñu jox la junne oto da jënd oto bu jël 60 millions ñu jox la junne oto yuy jar 60 wala jox la 100 millions naka nga mës a jëndee benn kër nga jënd ñu jox la junne kër kooku dama ne ci kaw suuf kenn mënu ko moo tax mu ne. laylatul qadri xayrun min alfi shahr subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko ci biir weeru koor mun ma fay la ko junne yoon boo ko defoon ci beneen weer ma fay la ko benn yoon kon su fekkee ne weeru koor bi itam yaa ngi def lu baax kañ nga mën a am kañ ngay seenu kañ ngay xalaat kañ ngay fuglu kañ ngay foog ne yàlla dana joxe ci yow wala mu wàccee ci yow li nga xam ne mooy njëggal mu ne gannaaw bi nga xamante ne woore nga ko ni ma la ko waxee waaye du yow ni nga ko buggee du yow ni la ko waxalee yow waaye man yàlla ni ma ko bëggee waxee ko ci alquran joxee ko sang-sang yi sayyiduna wa naa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na nga am yërmande ci jaam yi am nga am yërmande ci say bokk na nga góorgóorlu na nga jàng alquran lépp loo doon def ci weer yi mu ne jeexut munoo koo jeexal bu dee nelaw munoo jeexal nelaw bu dee bànneex munoo koo jeexal bu dee jigéen ñi munoo leen jeexal bu dee ndox munoo koo jeexal bu dee lekk munoo koo jeexal war oto munoo koo jeexal bu dee noppalu munoo koo jeexal bu dee liggéey munoo koo jeexal loo mën a def munoo koo jeexal mu ne kaay nag ci weeru koor bii nag ma ubbil la buntu yi yëpp loo ci def lu baax ma fay la ko wutal koo xamante ne amul nga jox ko jàngal ko alquran wala nga may ko ci sa xam-xam wala nga may ko ci sa xel wala nga may ko ci sa xalaat wala nga may ko ci sa alal wala nga ñuqi jox ko yàlla ne man maa la koy remplacer te kenn du ma ko defal du jinne du malaayika du seytaane du kenn man yàlla man maa la feel sama bopp kon mbokk yi kii mooy yàlla bi nga xam ne mootu tudd arrahman moo du arrahim moo tudd algafar moo tudd algafuur mooy malika almulki zul jalali wal ikram mooy xalilul mooy muqtadir mooy nga xam ne rachid mooy ki nga xam ne a saboo ba jaam yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi def du la neex ci lim la jox ci sa doo ci sa doole mu compati as tuuti ci doole jox la ko nga def ci du la neex ci lu bon mu compati as tuut ci xam-xam jox la ko nga def ci lu la ci neex ci moy ko mu compati lu ci kattan ci doole mu jox la ko nga def ci lu bon ci kaw suuf kon yàlla ne man maay as saboo kon man maa mën a muñ da ngeen di wooyee démocratie mu ne yéen da ngeen di wax lu leen neex xamu leen ko amu leen ko waaye bu dee dëgg dëgg démocratie mu ne man yàlla man maa ko am yéenay tooñ yéenay saaga yéen a bon yéen a réew yéen a fuuy yéen a xamadi mbon yëpp ngeen def ko ba pare ma man leen a lakk ci saase ma man leen a fayu ci saase ma bàyyi leen di leen di seetaan te lii yëpp man maa ko moom maa moom sama suuf maa moom sama jaam yi maa moom li ñuy lekk mu dagan maa moom li ñuy lekk te daganul maa la tere bu baax bi maa la sant bu baax bi maa la tere bu bon bi te yaa xool loo neex nga def ko maa la indil alquran indi ci yow yónni ci yéen jullit ni wala ci yéen doomi aadama yi cent vingt quatre mille prophètes te amagul benn sëriñ wala benn président boo xamante ne bind na cent vingt quatre mille ci ay lettres te amul wala résultat ban la waaye yàlla cent vingt quatre mille prophètes la yónni ku ci nekk mu jox la téere mu wax ak yow mu déy la mu jox leen indi leen doyul de mu ne danaa xool nag fi nga xamante ne fa lay yem ngir lan adduna bii nga xam ne falaa leen tëjoon di prison ma war leen faa ubbi pour ngeen ñëw wuyu si ma ma fay leen seen jëf fan la ñuy jaar mu ne dama leen di rey yeen ñëpp ngeen di dee benn par benn genn par benn benn dee par benn benn di dee insaan ma dundee fukk insaan ma rey téeméer insaan ma rey junne insa ma reyandoo million ngi nit te sama yoon nekku ci man yàlla ndax lan kulla yawmin huwa fi sha'ni fa bi ayi alaai rabbikuma tukazziban ya ma'shara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari as-samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayi alaai rabbikuma tukazziban ana lan ngeen mën a weddi ci man sama kattan man yàlla man mi nga xam ne maa leen jox ku fi nekk danaa la faat danaa la rey loo am am am loo rëy rëy rëy loo xam-xam xam wala loo suufe suufe wala loo tuuti tuuti ak noo mën a toll danaa la rey ana firawna ak ni mu toll woon dem ba beew ne ana rabbukumul aala nekkatuma buur bu ma kenn waxati buur waaye man maay seen borom kaay leen ngeen jaamu ma firawna demoon na ba agsi ci lii ana namroos dem ba jëli yonent yàlla ibrahim ba dem ne ko dama koy sànni ci safara ma xool lan lay wax te lii yëpp boo ko seetloo lan moo leen ci yóbbu bëgg alal bëgge bëgg ngóor bëgge bëgg maa kii bëgge bëgg maa ngi nii bëgge bëgg ñëpp ñu wax leen ndeysaan yow ñu wax la eskay lii rek moo indi li nga xam ne moo indi beew mooy indi fuuy nga xool qaaruuna inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baga alayhi wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu latanuu bilosbati uli quwa iz qaala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin wabtaqi fima aataaka allah addaara alakhira wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabgi alfasada fi lard li nga am ci ay milliards nga am ko ci ay tracteur nga am ko ci ay kër nga am ko ci ay oto nga am ko ci lu ne lu ne ba ñu ne yow yaay kii ba dama dem sa caabi magasin yi wala sa banque yi buñ ko jëlee def ko ci ay camion wala def ko ci ay conteneur bu ci xej caabi yi kese benn caabi buy ubbi banque benn caabi buy ubbi kër benn caabi buy ubbi magasin benn caabi yu ubbi am sàq lii yëpp caabi yi nga boole leen mais boo ko defee ci conteneur mënu ko yóbbu kon kii am na alal waaye nga xool fan la ko yàlla fekk fekk ko ci biir paleem ba woo ndox ndoxoo man maa la moom maa ko moom fuuy na may naa ko lu ne defal naa ko lu ne mu bokk ak ay nit yu baax waaye tey ji fetteerlu na fuuy na bon na kon nag kaay leen ngeen xool naka laa koy def mu ne ndox demal ci biir palais ba nga lekkal ma ko nga naanal ma ko moo tax ndox ma ba mu ñëwee jël ko nag wann ko moom foofu la yem moom nga xool firawna yàlla moomee ko ca baxru xalzuum la nga xamante ne moo xew yépp moo tax ba moo tax ba ba woykat bi di wax na isa bnu maryama ruuxullahi yaa ko abal ay kimtaanam ba muy def mbir yu kiimaan yi keroog ba Muusa dajee firawna ak kurélam ci baxaru xalzum ba yaa tax mbir ya saf kaane luy loolu muy diggante isa bnu maryama li ko yàlla jox mu diggante Muusa li ko yàlla jox nuuxin li ko yàlla jox firawna li ko yàlla jox donte moom saay-saay la lii yëpp mu indi ko ne yéen ñii yéenay nit dama leen indil nii nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awxayna ilayka hada alkitab wa in kunta min qablihi la min alghafilin dama lay indil alquran pour ngeen jàng ko pour ngeen xool li passé nekkul pour ngeen xool ko fooy par fooy nekkul pour ngeen fuyati ko da ngeen ko war a jàng ngeen xam li nga xam ne moo passé qul siiru fi l ardi afalam yasiru fi l ardi fanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim dammara allahu alayhim walil kaafirina amsaluha kon weeru koor bu ñëwee dafa mel ni li xewoon ci adduna yëpp mu jël nag boole lépp jox ko sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne man damaa sopp sama jaam yi man damaa bëgg sama jaam yi te yow laa mujjee yónni te benn yónent du ñëwaat nit fi fen ne yónent la nit dana fi fen ne waliyu yàlla la nit dana fi fen ne moom borom fit la nit dana fi fen ne am na ne ne wa fawqa kulli zi ilmin alim loo fi mën a wax yàlla ne da ngay fen man mii maa xam maa moom la ca suuf man mii la la ca kaw man mii la huwa al awalu wal axir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli cheyin alim wa huwa samiun alimun qaribun mujibu daawata daai ida daan falyastajibu lii walyuminu bi laallahum yarshudun mu ne kon ñëw leen ngeen ñaan ma ñëw leen ngeen jege si ma ñëw leen ngeen tuub ngeen jégalu seen i bakkaar seen i bakkaaru ndey seen bakkaaru baay seen bakkaaru maam seen i maamaati maam li ñu def ci àddina ci lu bon ci lu ñaaw gaaw leen ngeen jéggulu ndax bu ngeen jégguloo ma jëggal leen lan moo tax loola mu ne am na sadaqatun jaariya bokk na ca loo xam ne xale bu góor wala gone wala nga jur doom joo xam ne bay nga ko ci kaw suuf muy jàng alquran wala mu di la ñaanal benn doom ju baax nga xool ñaata doom nga am ñëpp ñu nga école ku ci man alquran kenn ku ci am diine kenn musiba naaru laay mu ne kon demal nga gaaw jaral jure sa njaboot jàngal leen alquran ndax lépp luñ jàng ci alquran yow mi ko jur mu ne bu soobee yàlla lu mañaan ci yow dinaa la ko defal yemu ca mu ne ku mokkal alquran bu àllaaxira jotee dama ko wax ne kaay nga taxaw mu taxaw mu ne juróom-ñaar fukki junni nit ci sawi bokk kaay nga jël leen nga yóbbul leen ma dugal leen aljanna jéggal naa leen ndax yow li nga munee sama alquran bi ak ni nga mokkale ñuy sàggan ci jamono boobu ba weeru koor bii nga xam ne loo ci lu baax yàlla fu landi ko defoo ci lu baax waxoo ci lu baax julliwoo woo ci naafila woo ci wooroo ci defoo ci lenn lu dul ngay yaakaar ne yàlla ku baax la wala yàlla ku yaatu la wala yàlla moom borom yërmande la yàlla du ma yërëm kenn koo xam ne jaaroo ci yoon bi rahma maghfira etqu min an naar fukki fan yoo xam ne lépp yërmande la mu ne kon na ngeen yërmante yow mi nga xam ne yow yaay kilifa bi ñi la feete suuf yërëm leen ci koor gi ñi nga xam ne ñooy say bokk yërëm leen ñi nga bokkal yoon bi bokkal leen tali bi yërëm leen ba ci oto bi nga yor ba ci mbedd mi ngay jaar yërëmal lépp dafa sa lépp muy yërmande loo wax na doon yërmande loo def na doon yërmande mu ne nag fukki fan yooyu na la wóor ne boo koy def rek man wàcce naa ci yow lii di yërmande kon nekkul ne dañu nekk ci koor gi rek ñii woor ñii wóoruñu ñu ne wo yërëm nañ ñëpp déedéet ñaata nit ñoo ne ci kër kenn dafay liggéey bu weer dee moom rek mooy fayeeku kon naka nga bëggee nag ñu ne yow ci biir fii ci kaw suuf fii kër gi benn moo ci woor waaye ñëpp a ci am tiyaabu mu ne yow mi woor nag kaay ma wax la jëlal nga fexe ba ku wooroon te amul lu mu ndoga nga jox ko mu ndogu mu ne la mu am ma jox la lu toll noonu te bosam du wàññeeku kon mbokk yi lii jar na koor maxfira mooy yërmande mooy njëggal yonente yi yëpp waxfir lana zunubana man di ko dégg ci alquran jéggal ñu suñuy bàkkaar gafurun rahim mu ñëw ci wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah huwa xayran wa azama ajran wastaghfir inna allaha gafur maxfira ñëw yër yu bëri ci alquran lu tax yàlla bu ñuy wax ne di ñu wax ne fukki fan yi ma def ko muy njéggal parce que bu ñu jéggalul musiba xew kon na nga gaaw na nga jéggalante na nga yërmante na nga ànd ak nit ñi ci mbaax na nga ànd ak nit ñi ci yiw na nga ànd ak nit ñi ci lépp loo xam ne day defar réew di defar jikko wala muy defaral nit réewam wala mu defaral nit jikko mu ne fukki fan bu jeexee nag kon léegi te jii naa leen musal ci safara mu dugg ci leetul qadar mu ne wut leen ko nag witran witran wut ko ci le 21 wala nga wut ko ci yi nga xam ne dafa tóol ci biir weer wi su fekkee ne xamuloo ko nay def kon jëlal lépp nga tàmbale le 21 ba bés bi ñuy wax ne suba la kori nga def ko laylatul qadar lépp nga boole ko kon dara du la ci rëcc ndax sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam won nañ ko bés ba mu xam ko mu yeewu yàlla fàttaloo ko bés ba te yàlla waxoon ne ko sa nuqri'uka fala tansa dinaa la jàngale ba dootoo fàtte lii mu fàtte ko mu ne ah kay de moo tax ma def ko pour lan li ngeen ni bugg a def ci benn le 21 boobu wala nga def ko ci le 27 boobu wala ci beneen jour ba mu ne tee ngaa def lépp rek benn yoon nga amandoo lépp lu tax yàlla mu ne inna allaha kaana bikum rahiman ndax def leen yërëm kon mbokk yi na ñu nañu góorgóorlu ci weer wi nañu góorgóorlu suñu diggante nañu diggante suñu diggante ak suñu borom waaye nañu góorgóorlu suñu diggante ak suñu morom di ñaan ci yàlla Sénégal ya ne ko yàlla neexal Sénégal yal ne ko yàlla baaxal Sénégal yal nañu yàlla may juboo ak déggoo mu may ñu diine l'islam boo xam ne xuraafaat di ci am l'islam boo xamante ne aada ak cosaan du ko yàq l'islam boo xamante ne tariixa ak parti politique du ko yàq l'islam boo xam ne bakkan du ko yàq l'islam boo xam ne bakkan du ko yàq ndax yii yëpp dafay yàq diine l'islam saa yoo xamante ne yaa ngi sa diine nga am leneen loo ci dugal yàlla ne man maa gën a fiir ñëpp banaa la fi dem naa banaa la fi naa ba alquran bi sa mu ne def naa ko moom la ashaddu tafallutan min al ibri fi ba fi bairiha ne loo mokkal mokkal alquran boo ko bàyyee benn mu dem mu def suñu maam sayidi wa cheikhi wa walidina alhaaji ahmad dem ca sookoon borom du yaa u nay rey ni mu ne gis nga alquran boo ne man dama sant ba mu ne man ma sant dem bi maana boo ko bàyyee mu dem kon alquran dañ koy jàng toujours nga di ko jàng yàlla rek tax nga di ko jàng itam ngir lan yàlla jéggal la say bàkkaar nga di ko jàng ngir yàlla jëggal say nitu bopp waaye ngir yàlla jéggal adduna bi yëpp ndax loo ñaanal nit yàlla ne ma indi ko ci yow kon diine lislaam bii du mat ci kenn ci ñun lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom laa yakmulu imaanul mar'i hatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l-axirati hasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin rabbana la tuzig qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الحاقدين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم الملحدين وانصرنا على القوم المعتدين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من القانتين وجعلنا من الحافظين توابنا تائبين